ñu ngi baare ñu ngi def seen ay barrage di taal di sànni ay xeer ah di woo policiers yi naan leen ñëw leen ñëw leen ñu ngi woo police tapote leen live bi ngeen partagé ko s'il vous plaît sama gars yi Stade Lat Dior ah, am na koy annoncé ne Stade Lat Dior aussi y a a du monde ça sauf à Thiès Stade Lat Dior ci commentaire ya ah, waaw voilà on est donc en direct de toute façon vous avez remarqué un peu la, situation à Thiès. Euh, les gens se sont, se mobilisés. La jeunesse également est sortie massivement. jàkkaarloog policiers yi di sànni ay xeer. jàkkaarloog policiers yi di sànni ay face to face la. Ah. c'est une euh, c'est une affaire inédite hein, il faut le dire il faut oser le dire pratiquement depuis 2012 euh, situation bu ni mel nemmeeku ko à Thiès ah mais de toute façon nous allons poursuivre. voilà nous allons poursuivre euh, li xew ci euh, xew ci réew mi. Oh, oh oh oh oh oh ñu ngi disperser la la foule euh, la police est en train de disperser la foule la police est en train de disperser la foule. fu ko xam Thiès xam rue sans soleil à Thiès ah gis ngeen niñ ko ni ñu ko taalee aada fii euh, pratiquement tout est tout est paralysé resto yi. il y a Croissant Magique à, à ma droite ah lépp tëj nañ ko donc euh, fii également euh, lépp mu ngi aux arrêts euh, ni mu amee fii noonu la amee également ci yeneen artères yi Croissant Magique gis nga lépp nekk na aux arrêts pour le moment yéen Thiessois yi nga xam ne vous êtes au niveau donc de la diaspora xam leen ne votre ville la <laughs> ville de Mamadou Dia à cette l'instant que je vous parle c'est un peu compliqué hein c'est un peu compliqué ngeen ñu suivre également Euh, en direct sur la sur Thiès Info mmh. télévision bu mag bi site bu mag bi nga xam ne c'est une première à Thiès mu nekk fi def liggéey bu am am solo tapote leen live bi ngeen partagé ko internet yi également ngeen abonné euh, dinañ leen toppal ci lépp loo xam ne aussi euh, day tukkee ci euh, Thiès croissant magique waaw mu ngi noonu voilà gis ngeen dafa te ku ne gis na ko Thiès mënul ñàkk xare bu am musuñ ci des ginnaaw lii am nii nag daanaka moo raw xare xam nga nga ñu woote marché pacifique regroupement sax lañu waxoon pacifique nan sol yére yu weex yow mayoon nit ñi sax ñu daje ñu daje pour mën a sol euh, pour mën a taxaw wax lu leen naqari xanaa avant cinq personnes dis di daje nga déclenché ay lacrymogène xam nga ne loolu coow li yow yaa ko njëkk a xam déjà parce que li nu njëkkoon woote mooy ñu daje pacifiquement ñu daje ku nekk wax sa xalaat wax li la naqari ci réew mi lii nag wane na ni vraiment encore une fois Macky dafa lajj génnam dina ñaaw décret bii nga xam ne jël na ko tegewul fenn li ñu koy ñaan mooy mu retiré ko ne ko retiré bu bëggee jàmm am Sénégal ndax lii kanam la jëm yéen a ko gisal seen bopp vous avez vu tey Thiès xale yi dañ ko def doom tey te c'est c'est par des mouvements dispersés du benn organisation boo xam dafa daje organiser wu pour woote manifestation ku nekk daa génne wane sa amertume wane li la naqari donc jot na. Macky Sall nit ñi waxat moom jot na kilifa diine yi waxat moom jot na xelam dellusiwaat lii nga xam ne teg na ko ci taal bi mu retiré ko ndànk pour Sénégal am jàmm. moo xam nga xeex bi mënoon naa gën a garaaw xam nga nit ñi jóguñu pour taal pour yàq. parce que taal ay xeer teg ay xeer ay pneu loolu moo lay won ni ndaw yi Sénégal jóguñu pour yàq ndax loolu yàqul dara nit ñi bu doon yàq dañuy song ay structure song ay banque song ay nangam nangam nangam nangam mais loolu kenn gisu ko fi nit ñi dañu waree seen naqar par xëcc ay branche ak ay garab teg bu mu dem donc. Euh, nan ko xeex nii moo gën ñu xeex-xeex boo xam dañuy yàqal askan bi seen alal nanu xam lan lay dialogue buy woote dialogue bi lan lay dialogue bala muy dialogue na retiré décret ba pare woote dialogue pour ñu xool fu ñu jëm bu bu li nga xam ni moom la teg ci table ji bu ko neexee woote ñu waxtaane tey élection yi nan lañ koy organiser ak fan lañ jëm ñun li ñu mës a prôné mooy coow yi am mënta ànd ak ay élection élection yi dafa war a jàmm dañ ko a def ci xel mu dal comme nag dëkk bi jaxasoo na na woote dialogue ñu waxtaane ko mais bala muy woote dialogue lii nga ne teg ko ci table ji na ko retiré ba pare voilà organiser wu ànd ak euh, mouvement yi fi nekk ànd ak yenn parti ànd ak waa F24 euh, vraiment teg euh, xeex lii ba ba au bout duñ ko bàyyi mu jàll lii mënut a jàll te duñ ko mës a bàyyi mu jàll waaw non jàpp Saliou Ndiaye xam nga jàpp ci koo fekk mu taxaw ci mbedd mi du mujju fenn ci kanam tuuti ngeen dégg ko mu dem këram loolu nit ñi xam nga Saliou miin na loolu ñëw génn pour manifester ni pacifiquement ngay manifester ñu fekk la place de France fekk manifestation démarré wu sax ñu jàpp la dinañ la bàyyiwaat ndànk parce que jàpp gi duñ duñ ko teg fenn. le responsable des jeunes du département du PCS Diengu Tabax du président Boubacar Camara. alors waaw la euh, comme nous tous ah ni ñu ko gisee metti nañu euh, dañoo buggoon génn si jàmm ak salaam. Euh, sànni ñun tamit suñu kàddu wane suñu euh, euh, euh, suñu suñu nakar ci ci ci li xew ci dëkk bi mais malheureusement on nous a pas laissé exprimer aujourd'hui notre sentiment wax dëgg yàlla te metti nañu lool lool lool lool waaw bon pas pas l'autre option comme comme comme ni nga gisee ñun ñu ngi taxaw di xool booy yi rek ñoom mer nañ ñu ngi jël di taal et pour man ñu ngi ci seen droit donc moo tax ñu génn di wane que ni carrément ils sont pas contents on les a pas laissé exprimer li nga xamante ni moo nekk seen biir xol. vraiment Macky Sall ñun doyal nañ son mandat touche à sa fin na bàyyi réew mi ñu dem organiser ay élections yu jaar yoon ñi ko war a waxtaanee waxtaanee ko comme ni ko président Boubacar Camara digle woon ñu wa def un report consensuel acteurs yi ci boppam toog waxtaan. ñu ñu ñu ñu dem si élection yoo xamante ni yu libre et inclusive lay doon. bon ñun de loolu lañ jàpp ñun. waaw te ñu ngi doxal suñu campagne fépp fu ñu ko mën a doxalee. xawma nag ba leneen di ñëw. loo xam ne constitution boo xam ne verrouillé woon nañ ko Macky Sall jaay ñu doole jël mandat bi yóbbu ko ba 15 janvier décembre loolu la ñu àndul tey ànduñu ci ëllëg ñun ñu ngi ci campagne ñu ngi ci campagne te duñ ci dellu ginnaaw. la vingt cinq février incha allahu élection day am Sénégal Macky Sall na dem doyal nañu jàpp na suñu yay yi tëj ci kaso yi jàpp suñu papa yi tëj ci kaso yi jàpp suñu frère yi tëj ci kaso yi Macky Sall na dem doy na doy na dictateur bi ci réew mi dañu cee sonn na dem na dem doyal nañu loolu rek moo ñu jëlee suñu kër yi. la leen combat comme lu ne bakkan bakkan la ñuy joxe. li Ousmane Sonko ni woon Macky Sall du ku ñuy dialogueel Macky Sall xeex moo koy jëlee ci réew mi te on est di prêt pare nañu pour xeex pare nañu pour futteeku pare nañu pour summeeku mu jox ñu suñu bakkan wala ñu jël bakkanam rek.